trois espoirs. na ànd ak sa bëggol ñëw na ànd ak staff bi ànd seen ñëw na ànd waa Pikine Eumeu Sène ñëw na fekk fi na fekk fi na dañuy jublu ci liggéey bi parce que xam ngeen ni champion dafa nekk ci préparation amul jot mais contrat moo ko tënk muy ñëw remplir benn part ci contrat très rapidement war a dem li nga xam ni moom la mébétoon du woon ñëw complex Batora def conférence de presse li mu bëggoon mooy def open presse bu mag dajale waa Pikine yépp mais contexte bi moom moo laaj tey ñu daje fii waxtaan très rapidement bàyyi ko mu delluwaat ci yitte yi Eumeu nag tey ni mu dugg see ànd ak Pape Ngom magam ku ko xool xam ni tey dafa mel ni ku jëm ci li ñu tuddee mission mission boobu tey boo ko xoolee ni mu déguisé woo nga xam ni opération commando moom la mel ni moom lay déclenché ndax am na lu nga xam ne da ko dëgmal muy dimanche bii mu nekk bés bu nga xam ne ñor na ko lool fonk na ko lool waaye tamit jaral na ko lu nekk tàkkusaan bu nekk nag am na ko fi nekkatul mbër mu ñuy présenté wala mbër mu ñuy wax naka la war a dugge ci géew wala naka la war a waaje ndax lépp macha allah fekk na moom ak expérience am ak jaar-jaaram xam na bu neex bi xam na bu metti bi kon lu ko war ci bés xam na ko du nit bu nga xam ne dañ ko naan defal lii wala defal lii li Pikine di xaar ci moom tamit jarul kenn di ko ko wax xam na ko léegi rek moo jeune frère mi ngi koy wax je pense que Pikine ab besoin d'unité Pikine ab besoin di yëkkateendoo di dóorandoo damay faral di wax ni Pikine bu ñu bennoo xajuñu ci kenn waaye bu ngeen xaajaloo c'est pas avantageux pour pikin kon bokk ndey bokk baay tàppe xol yi uti indi loolu moom moo leen war dama nag challenge bu nekk relevé na ko titre roi des arènes indil na ko waa Pikine keroog ba ma ko laajee dafa ma ni Malick lu ne defal naa ko pikin waaye nañu fàtte li ma leen defal lépp dafa mel ni defaluma leen dara tant que indiwuma titre roi des arènes teg ko ci seen loxo nañu jàpp ni defaluma leen dara kon keroog ba mu indee titre roi des arènes la wàccoo pratiquement ak waa Pikine tey nag mu jëm ci bés ànd ak estafam boo leen xoolee magu pikin yi ci ginnaawam rek je pense que ngeen xam ne Eumeu c'est l'élément fédérateur de pikin xale yi nga xam ne ñoo nekk ci pikin ñoom ñëpp mooy seen mag mooy seen njiit mooy ki nga xam ne tey moo war a jiitu ñëpp topp ci ginnaawam xelam rafet na. xolom rafet na jëfam rafet na kon ku ñu war a mën a jox bopp la ku ñu war a mën a jiital la léegi nag dañuy d'abord jox kàddu gi Ladiang en tant que porte-parole de l'écurie Tay Shinga mu campé débat bi après sa ñu jublu ci question yi parce que yëf yi journalistes yi ñoom ñoo ko moom on n'aura que minutes avec Eumeu laaj ko liñ koy laaj libéré ko parce que salle bi dafa am yeneen obligation yu ci am moom tamit mu am yeneen obligation ñu comprendre ko noonu je pense que en trente minutes Eumeu mën na ci wax lépp lu ngeen soxla et les questions fondamentales dina ci répondre Lagnang vous avez la parole. c'est bon. auzu ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waajur ñu ngi sant aussi mbooloo mi fekk fii yëpp jiital si suñu papa yi ak suñu nijaay yi nekk suñu ginnaaw ah te père Bourkhane di seen doyen yi jiital leen ànd ak euh, père Mansour Diop père Pala père Baba jàlloo ah Sadio kenn manqué wul ku lim da ngay juum Pape Thiam Fajar ah di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen remercier aussi si déplacement bi ngeen def. ngir fekk ñu fii ñu def point de presse bi ñëpp nag xamoon nan ni contrat bi open de presse moo si bokkoon yàlla suñu borom dogal Malick wax na ko léegi par rapport ak li nu nekk du ay teggin ñuy woote open de presse ci stade Alassane Djigo bi mais ku xam Eumeu seen xam ni saa yu ma saa am programme stade Alassane Djigo la ko doon defee mais tey suñu rakk Ama Baldé mënul jóge si li mu jóge bëlki de moo Ndiaye ñuy woote open de presse fii ci Alassane Djigo di woote ay xumbaay ak i mumbaay pour que sentiraloo waa Pikine bokkandoog ñoom li nga xam ne moom la ñuy dund moo tax ñu préféré def point de presse ama sax dégg na ko d'ailleurs am na benn xaritam bu ma woo léegi ah ñu koy wax Ifra mu ne lu tax defu leen open de presse man ko ñu def open de parce que contexte ni mu demee moo tax mun ñu def open de presse mu ne ama nee na da waroon a def open de presse Pikine gépp ñëw parce que combat bi ñu jëm dimanche dañ koo soxla te danoo bëgg Pikine ah, dimanche mu ñu am ndam ñu di ko si sant nag di ko ci gërëm parce que moom noonu rek la mel koo xam waa kër Fallaye Balde xam ni noonu rek lan mel Mbusoobe wax na ko léegi Pikine amuñu problème yàgg na maa wax ni man dama am sens su nekk si seen biir mais muy Eumeu Sène muy Ama Balde muy Boy Niang muy booy Sokh ñoom ñëpp jàmm lañ yéenante c'est-à-dire nag Ndongo Lo daan na wax ni Pikine boo bëggee dugg si ñoom dëgg dëgg dëgg da leen di tàqale boo leen tàqalewul doo leen mënal dara dama yaakaar ne nag loolu la suñuy adversaire xam ba tax ñuy véhiculer yenn message yi mais ku xam Pikine xam ne ñun doxeewuñu noonu Eumeu Sène mooy seen mag nangu na leen a boot nangu na leen a gàddu te ñoom ñëpp jox nañ ko cëru mag boobu si lu nu fekkee ak lu nu fekkewul te ñun rus nañoo fekke loo xam ne aussi rus nañoo seede loo xam ni gëmuñu ko li ma gis si Ama gis ko ci booy naa gis ko si booyu Pikine yëpp mooy jox nañ seen mag cër bu loolu weesoo aussi ñu ngi nuyu douze communes pikin yëpp nuyoo bi ñu ngi si jiital le maire Abdoulaye Timbo le premier magistrat de la banlieue ñu ngi koy nuyu di nuyu Abdou Sall di nuyu Isaaxa Diop bi nga xam ni suñu frère la suñu xarit la di nuyu Cheikh jóob di nuyu ah ki nga xam ne mooy ministre des muy Lat Diop nga xam ne moom lañ tuddee drapeau bi ñu ngi koy nuyu aussi di ko tàllal loxo ci combat bi xam na ni sax dina ñëw mais ñu ngi koy tàllal loxo di tàllal loxo Cheikh Tidiane Thiam di tàllal loxo Thierno ba di tàllal loxo autorités yi nekk Pikine yëpp ñu ñëw ko jàpp ci combat bi parce que ñun ñëpp xam na ni combat bi dañ ko soxla ñu président Pikine président AS Pikine ñu koy nuyu président supporteru AS Pikine yi ñu di ko wax euh, fàtte naa bi xëy na dina ñëw suma xel léegi de pas mortala waa Moustapha Seck voilà merci beaucoup nga xam ne suba ba léegi ñun ñoo nekkandoo woon si organisation bi ah nga xam ni jàpp na ci base bi ci ginnaaw moo dem jëli ko ñëw takk ko ci ginnaaw ni grand bu Pikine xew lee booleen gestoo gis ma di nuyu aussi